Euh, metti na ñu teg la ci banc nga pour xaar deuxième mi-temps mais lépp soit course la rek ndax euh, course bi mooy xool ne tey match bi lii la laaj ñii la laaj moo tax ba mu tegee banc bi ma toog xool ma ni ci banc bi ma ni duggee man nu ma def dinaa dugal ndax match bi nu mel nii lu may toog ci maa ngi xool faay adverse moo tax ma duggee sama première action ma croisé bal bi deuxième bi tamit ma xool naaj bi fu mu tàmpe ak góol bi fu mu taxaw ma ne xaaral ma essayé ko ci camp yi si la duggee non non du tànn ndax du tànn deux matchs yi surtout dama jógee dama blessé di joué loolu nag moom xaw a handicapé léegi nag ma togg euh, presque trois jours ñëw ma entraînement keroog laa soog a ñëw jeudi bi laa ñëw ak vendredi bi tey coach bi def teg ko ci baax lu ñuy def dañuy dinaa ñëw dinaa a joué mun ma kon baax na si laa ñëwaatee entraînement ndax man lu may def rek dama siy déggoo staff bi ak joueurs ba pare ren moom ren moom championnat bi par rapport ak année yi passé ren championnat bi dafa metti ndax équipe yëpp am ñoo pay bi ba ci kaw xoolal lu rawantee bariwul kon nga xam ne sam na am na niveau te joueurs yi tamit dañoo xamante bu baax a baax ci terrain bi dañoo xamante ku nekk day xam sa morom lii la war a def moo tax loolu moo tax day gën a métti waaw tout man sama ambition mooy jëlal équipe bi championnat après waaw dem seeti leneen à